que du benn message booy jàllale. au moment où euh, le président Moustapha Niass euh, di annoncer départ am. non non non non non jàllale mu message damay wax rek sama aqulaay tàllaa laay wax. <laughs> et je dis parce que je suis témoin oculaire et auditif devant mm. Dieu et les hommes. Mm. dama fekkee bu dee bu keneen du ma ci wax parce que am na yu ma fekkewul man du ma wax lu ma xamul parce que je m'organise pour que suba kenn du ma démentir. Mm. donc moom gis naa et je sais ni que dina wax xalaatam. e je sais ni que aussi dina wax li mu bëgg a wax dina ko def. te président dina koy déglu dina bàyyi xel xalaatam. waaw c'est que c'est-à-dire fii réew mi dafa commencé yàqu parce que <laughs> dañuy commencé maa maa wax président mu def lii. Mm-hmm. boo dee wax président kay waxal rek. Mm-hmm. même après bu defee. jarul siiwal jarul siiwal. Mm-hmm. vraiment donc maintenant ci wàllu politique après ay supprimer premier expérience la on peut l'améliorer c'est-à-dire tey mën nañ jàngat. premier ministre bi mu fi jógee yan jafe-jafe lañ indi. mais est-ce que ça va être objectif non parce que beneen paramètre bu bees parce que dañ ko supprimer rek ñu dugg ci Covid beneen réalité la. est-ce que gérer woon ko ak premier ministre doo woon gën a yomb est-ce que coordination bi doo woon yooyu yooyu yëpp c'est des questions qu'on peut se poser. mais que le euh, le mandant c'est-à-dire le président de la République peut solutionner. amul gàcce ci ni que essayé nañ lii am na ay éléments yu bees on ne peut plus tenir on peut revenir là-dessus. c'est que comme la ñuy doxee. monsieur ministre dafa am dafa am ñaari événement yoo xam ne dafa am. Mm-hmm. xam nga gestion également. Mm-hmm. day am gestion de crise man mm-hmm. nga planifier c'est bien. mais si sa biir doxalin. Uh-huh. am na ay euh, ay aléas yoo xam ni day ñëw si sa doxalin. ñu seetlu si ñaar benn bi mooy euh, c'est vrai Covid bi. ak tournée politique bi. ñu xalaat ni gis nga léegi coow li bëri na ni le président. bokk na si ñi nga xam ni moo siiwal sax feebar bi wala à la limite bu ko siiwalu dem na tournée politique moment boo xam ni c' était dangereux c' était très dangereux maanaam c' était beneen bi mooy. Mhm. en mars quand jeunes yi di mobiliser wu. Mhm. foofu boo xoolee la manière dont le président a voulu résoudre le problème nga xam ni foofu euh, am na lu mu waroon a def te defu ko parce que dafa tëb rek daal di tijjiwaat ku feu bi jeex on a l' impression que pression bi moo tax mu tijji. te peut-être que manoon na ko jël avant. Euh, mhm. mënoon na tijji avant mais bi mu amee dafa tijji am ay décision yoo xam ni ba nga xam ne yooyu mort d'homme on a cru que benn moment peut-être mënoon na desserrer sans pour autant que ñu yegg foofu bu déglu woon peut-être wala mu am ñoo xam ne dañ koy dañ koy xalaat ci côté boobu. waaw euh, xam nga aussi mënuñuy soustraire aussi euh, ay ay évidence mm. c'est-à-dire yoo xam ni jot na am Covid bi bi muy commencé. moi je peux certifier sur l'honneur et tous les membres mm-hmm. yu conseil national boobu ñu créé woon mm-hmm. avec créé benn task force boo xam ne médecins yi ak ñëpp se réunissaient au palais CNGE e. e, mm-hmm. yu doon joxe ay directives parce que c'est une situation c'était situation de crise la woon lan mooy situation de crise crise mooy quand on sort de la normalité mm-hmm. et qu'on dans des dans des situations exceptionnelles mm-hmm. il faut des mesures exceptionnelles mm-hmm. bon est-ce que amoon nañ plan de contingence buy contenir lu mel noonu je ne pense pas que le monde àddina bi am na kenn ku ko préparé woon donc bi loolu amee décision yi président njëkk a jël yëpp ay tëj ay ubbi couvre-feu yooyu yëpp ça c'était commandé par CNG e. et je pense ni que dans un premier temps malgré ni que no détracteurs ay détracteurs u président mhm. détracteurs u ministre de la santé mhm. ils étaient contre mais quand même on a été félicité ouais, sur la on a été cité parmi les meilleurs est-ce qu'on a tenu est-ce qu'on n'a pas tenu ouais. bon on peut non, non je on qu'on vous reproche c'est moins la gestion près de la crise hein mm -hmm. mais benn moment euh, on a senti que mesures yi nga xam ni mi ngi sonal Sénégalais yi le couvre-feu et ça c'est que amul explication pour que sénégalais yi comprendre ko non c'était euh, président bi benn moment sax il ne parlait plus. Mm -hmm. je parle toujours du rôle du président kenn déggatu ko. Mhm. maanaam euh, day njëkk-njëkk rek ñu ne gouverneur bi tëj na tëj na. Mhm. dañuy dem ba nga xam ne à à un vingt quatre heures. de la fin euh, du truc là délai bi Mm-hmm. dégg nga dégg ñoo gouverneur yokku na wala ki yokku na moi je crois que benn moment le président pour les impacts bi nga xam ne amoon na ko ci koom-koom bi waroon na di gën a wax ak sénégalais yi loolu reproché nañ ko ko. non euh, Babacar je pense que gënuñu xarañ waa France. Mm. gënuñu xarañ waa États-Unis mm. gënuñu xarañ waa Israël gënuñu xarañ euh, waa Maroc gënuñu xarañ ñeneen ñi. considérons la waaw c'est-à-dire. on a bu fekkoon ni que particularité Sénégal la. ñu ni dafa am solution bu spécifique bu Sénégalais yi jël. Mhm. ñu mën ko même bu fekkee tâtonnement la c'est tout le monde qui a tâtonné. Mhm. à un moment donné feebar bi kenn xamul woon sax nan lay wàllante. Mhm. li ñu njëkk def mooy tëj école yi. dafa bett ñëpp. waaw école yi parce que dañ jàppoon ne que ci xale yi la. après ñu jege ci école yi après ñu ne nañ tëj université yi. mais ku ci nekk li nga doon def pour sàmm sa waa askan la. loolu mooy benn beneen bi mooy dañuy jiiñ rek. xam nga ñuy wax ni que président moo tas feebar bi bu mm-hmm. fekkoon ni que président moo tas feebar bi mm-hmm. mais tey chiffres yi il confirme ni que Dakar rek la feebar bi nekk mm-hmm. président Dakar la dëkk tournée bi dafa ko Dakar de oui c'est tournée bi ay Saint-Louis lañ ko doon def ay maatam ay Ziguinchor ay Kaolack euh, ay Tamba foofu feebar bi ba léegi dem demu fa nam fa xawoon a mel la fa mel dakaar kay moo am problème donc mën nañ bañ a topp ñi nga xam ni dañuy wax pour wax rek am na ñoo xam ni dañuy wax rek c'est-à-dire moi j'appelle au patriotisme gis nga liy xew actuellement Sénégal ci feebar lu ni mel mooy xew ci yeneen dëkk yi grand Momar dina xam lu tax bëgguma tudd dëkk mhm. mais lu ko yées mi ngi am ci yeneen dëkk tey mhm. mais dañ ni pat suturaal seen bopp di ko gérer c'est vrai pour bañ ñu marginaliser leen ci réew mi mhm. mais ñun fii nii ku xam wax ku xamul wax réel réel quelque xamul dara en fait on a exposé mhm. li tubaab bi wax dañu affiché suñu bopp mhm. ba tey ñu tànn ñu pinguñu di ñu laaj ay pass sanitaire mhm. ca ñu ko yeneen dëkk ca ñun ñëpp ñu xam